Lyon sorti de sa tanière destination tribunal de Dakar ñoo ngi avancé avec le président Ousmane Sonko la sécurité demande à ce qu'on accélère un peu c'est un peu parce que li ñu créé ci ginnaaw moom indi attroupement bi yëpp mi ngi noonu nee ngir yàlla génne bi nga bàyyi doomu jaamur bi lii dafa ñaaw nit ñi génnati nañ seen kaw terrasse yi président Ousmane Sonko moo fi jaar jaarati destination tribunal bu Dakar ci lii la ñuy taxaw lii la ñuy taxaw président Ousmane Sonko ovationné par de simples citoyens les citoyens du Sénégal ceux qui le portent dans son dans leur cœur président ngi noonu parce que lii itam kenn xamul lu mu doon nit bu xëy war a dem tribunal di dox doxam tranquillement nga jël say oto encastré wu littéralement dugg ci convoi bi ba ay oto te yow du yoon nañu waxante dëgg mais fii la Sénégal tollu fii la Sénégal tollu mi ngi noonu je vous donne l'image ci kanam nit ñaa ngi ci kaw terrasse yi di xaar yéen a ngi dégg Sonko Sonko Sonko Sonko le président du peuple sénégalais oto yaa ngi progressé ci kanam on accélère un peu on accélère un peu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko destination le palais du tribunal de Dakar mi ngi noonu borom oto yaa ngi klaxonné génn nañ président Ousmane Sonko mooy ñëw exceptionnel Sonko Sonko ces étudiants sont conscients de leur avenir regardez ces images images pour une première dans l'histoire du Sénégal Quelqu'un qui est convoqué au tribunal, accueilli, soutenu, ovationné par le peuple sénégalais ku nekk ci dëgg askan bi fekk ci la ci dëgg président Ousmane Sonko ci dëgg la nekk ñoo ngi noonu on accélère un peu ngi daw on accélère un peu destination tribunal bu Dakar comme l'a dit hier le président Ousmane Sonko moo di loo xamante ne ça le procès le du Prodac mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ñoo ngi progressé war a génn ci nga xamante ne moo di Estelle Mermoz Estelle Mermoz bi nga xamante ne yàgg naa ko wax depuis 2021 dañ ko war a rebaptiser la place du président Ousmane Sonko 2021 le 3 mars foofu la lépp xewee ñëpp Sénégal yu gis njàmbaarte ki nga xamante ne du dellu ginnaaw askan bee ko tax a jóg président Ousmane Sonko foofu la ñuy génnee Estelle Mermoz ñu progressé jëm tribunal bu Dakar président Ousmane Sonko où l'attend certainement de milliers de Sénégalais ni ñaa ngi génn parce que le président est là nonobstant li nga xamante ni moo di le dispositif sécuritaire impressionnant Dakar est en état de siège mais le président Ousmane Sonko mi ngi dox di circuler mi ngi jëm fi nga xamante ni moo di tribunal quand tout se passe dans les règles de l'art le président Ousmane Sonko respecte évidemment cette loi du Sénégal waaye lépp na jaar ci yoon dispositif sécuritaire baa ngi noonu ay unité d'élite yu ñu génnee gendarmerie d'intervention waaye min nañ li saa yuy président di génn nii lay demee mi ngi noonu d'accord na place du 3 mars mi ngi nii place baa ngi nii fii la lépp xewe fii la président génn boot loxo yi de manière sereine askan bi di ko seetaan ñuy témoigner njàmbaarteem mi ngi noonu la place du 3 mars la place du président Ousmane Sonko mi ngi noonu le même dispositif mi ngi nii les mêmes causes produisent les mêmes conséquences moo tax it ñoo ngi ni on avance bu ñu bàyyee ñu dem rek ñu àgg fi ñu jëm buñ ñu galgalee nag leneen lu am ñoom ak askan bi la Sénégal ñu ñor bu lépp jaaree ci yoon ñu respecté yoon bu dara jaarute yoon yoon am foofu waaw waaw motaar yaa ngi yëngal li ngi noonu c'est le président du peuple on lovation on le salue ku nekk ak sa manière ak noo ko dundee président Ousmane Sonko on progresse ñoo ngi jëm tribunal bu Dakar ñoo ngi jëm tribunal bu Dakar di fàttali am na quelques échauffourées yu am ci diggante bi fële nga xamante ni moo di juste à l'entrée de Mermoz président ñëw waroon a romb et je rappelle que ay véhicules yu bokk ci convoi bi ñëw encastré wu ci président génn moo ni tant que véhicules yooyu génnuñu ci son convoi parce que wóorul il ne bouge pas mais ngi noonu yéen a ngi seen ci ginnaaw des véhicules de la BIP des véhicules du GIGN des véhicules de la gendarmerie nationale ku ñu romb tu te mets en branle nga topp ñu mi ngi noonu nu ne peut contre la volonté divine seul l'agenda de Dieu compte Mamadou Dia jàngal nañu ko ci baatu alxuraan yi mu doon récité mi ngi noonu mooy suñu viatique li ñu war a def diñ koy def leneen li yàlla def moom la agenda wu yàlla kenn du xëccoog moom te yàlla créé Ousmane Sonko yàlla ko def ci xel xol yi leneen lu mën di am mooma on est là nañ fi nga xamante ni moo di fi tollook ak Pierre Goudiaby Atepa on avance la place bienvenue à Dakar ñoo ngi dugg nañ ci corniche bi le convoi du président Ousmane Sonko mi ngi avancé destination comme ni ma ko waxee tout à l'heure le palais de la justice de Dakar ñoo ngi jëm palais bu justice bu Dakar président Ousmane Sonko en procès tey ak li nga xamante ne nit ñaa ngi noonu di génn Sonko kenn mun ci dara mbiru yàlla la agenda wu yàlla la et on avance et on avance et on avance comme ni ngeen ko gisee comme ni ngeen ko gisee ci kanam li ko topp ci média li ko topp ci média ñu naataangoo yaa ngi noonu suñu naataangoo yaa ngi noonu ñu ngi noonu la presse nationale et internationale a aujourd'hui les yeux rivés sur ce qui ici à Dakar ici sur cette corniche gis nga gars yaa ngi klaxonné président Sonko usagers de la route yi ñoo ngi klaxonné président Ousmane Sonko. Je rappelle que le président Ousmane Sonko, qui répond aujourd'hui à la convocation de la justice dans le cadre du procès dit, dit de Prodac, un procès qui devrait viser le détournement, qui devrait viser le détournement de 29 milliards, à l'occurrence du PRODAC. Le président Ousmane Sonko est sorti aujourd'hui tout naturellement pour aller répondre à cette convocation. L'audience est prévue à partir de 10 heures. Président Ousmane Sonko qui en destination, qui est en mouvement d'ailleurs, la corniche de Dakar, pour aller répondre à la justice sénégalaise. Nonobstant, il faut signaler, euh, dès sa sortie euh, de son quartier, il y a eu des, quelques échauffourées parce que des véhicules étrangers à son convoi se sont encastrés même dans quelques de ces véhicules, de ces véhicules, et y ont causé des dommages. Ce qui a provoqué la colère du président Ousmane Sonko qui est sorti pour leur demander de sortir de son convoi, sinon il n'allait pas bouger. chose qui a été faite. Et là, actuellement, on a repris le trajet destination Palais de la Justice. Le président Ousmane Sonko, ovationné, soutenu par le peuple sénégalais, que ce soit les usagers de la route qui le saluent à coups de klaxon. Nous sommes sur la corniche ouest de Dakar, destination le Palais de la Justice de Dakar. Le président Ousmane Sonko est attendu en procès pour l'affaire concernant le Prodac, détournement de 29 milliards, dont le brillant président du Forum civil sénégalais, avait déjà écrit un de festin au Prodac, le ministre Mambay Niang et d'autres entités de ce gouvernement de Macky Sall. Radisson Blu les gens ovationnent le président Ousmane Sonko mi ngi noonu fu mu dem ni ñi nuyu ko yéen a ngi dégg klaxon yi yéen a ngi gis askan bi ñi ngi yëkkati loxo président Ousmane Sonko gis yaa ngi ñaa ngi klaxonné président Ousmane Sonko usager yaa ngi yëkkati seen loxo lii la yàlla def lii la yàlla def corniche bi waa jooju chaque semaine mu jaar fi du dégg ku ko klaxonné mi ngi noonu mi ngi noonu waa UCG ngi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko sur la corniche ouest de destination le palais de la justice de Dakar le président Ousmane Sonko est attendu en procès procès de l'affaire du Prodac détournement de 29 milliards aujourd'hui ce gouvernement veut en profiter pour nier l'existence de de ce rapport qui a mis en cause, qui a épinglé voyez, nous sommes au siège de la Banque mondiale. Les gens sont en hauteur, ils sont au niveau de leur terrasse. Ils applaudissent, ils acclament, soutiennent le président Ousmane Sonko. Le peuple se libère. Le peuple est avec le président Ousmane Sonko. On progresse. Nous avons des gens qui klaxonnent, taximani. Nous avons le dispositif sécuritaire. qui malgré tout ñi ngi topp suñu ginnaaw dugg ci biir convoi bi même su fekkee ni ñi ngi carrément ci ginnaaw véhicule sécurité au moins ñoo ngi progressé jàmm rek lay am président Ousmane Sonko. moto yi ngeen di seen ñi ngi koy accompagner la presse nationale la presse internationale aujourd'hui Dakar est en mode fenêtre sur le monde entier nit ñi dinañ ko xool dinañ ko gis. président Ousmane Sonko nee naa leen bu ñu defaree lépp mu jaar ci yoon président Ousmane Sonko day top yoon waaye yoon bu jaarul li yoon rek yoon amatu fa donc on le respecte pas on ira au tribunal ñoo ngi jëm tribunal ni ngi noonu yéen a ngi seen nit ñi askan baa ngi génn ndeysaan ci fajar si di nuyu président Ousmane Sonko mi ngi noonu nit ñaa ngi klaxonné président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi ngi noonu yéen a ngi koy seen yéen koy seen askan baa ngi génn borom moto yaa ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu nit ñaa ngi klaxonné nit ñaa ngi klaxonné lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal l'homme du peuple est là dispositif sécuritaire bi munu ci dara lii la yàlla dogal nit ñaa ngi klaxonné borom oto yaa ngi klaxonné nit ñaa ngi yuuxu président Ousmane Sonko sur la corniche ouest de Dakar destination ñi ngi jëm tribunal étudiants yi waa université ñi ngi kaw balcon président ngi noonu président ngi noonu Ousmane Sonko jëm tribunal bu Dakar nous sommes sur la corniche ouest di jaajëfal presse bi ñu topp la presse nationale internationale tey li fi xew yëpp dañ ko war a wone nous sommes les témoins de l'actualité les témoins de la marche du monde ñoo ngi nii et surtout les témoins de ces événements tristes pour le Sénégal le chef de l'opposition du Sénégal qu'on par tous les moyens à éliminer du jeu politique du jeu électoral pour la présidentielle de 2024 te ñëpp xam nañ ni présidentielle moom la presse nationale ngi noonu jàmbaar yaa ngi noonu nekk ci seen ay moto gaa yaa ngi noonu bége naa leen sama gars ñi ñu ngi noonu ay jàmbaar lañ sur internetu Sénégal yi ay jàmbaar tigi lañ ñu ngi noonu ci moto yi topp président Ousmane Sonko di ko filmer di wane li fi xew nuroowuñ ak ñenn ñi waaye yàlla baax na comme ni ma koy waxee agenda wu yàlla rek mooy bu baax bi mi ngi noonu xale yaa ngi ko topp moto yaa ngi ci ñu ngi klaxonné presse baa ngi ko topp président Ousmane Sonko fii ci corniche ouest war a progresser jëm fi nga xamante ni moo di tribunal bu Dakar. président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ñoo ngi dem ñoo ngi avancé nit ñaa ngi tàccu ñi ñëpp ay ouvrier lañ ñoo ngi liggéey waaye seen xel yëpp mi ngi ci président Ousmane Sonko lii la yàlla dogal yéen a ngi dégg déggeen ko mi ngoog mi ñaa ngi koy nuyu ak klaxon yi coup de klaxon yi mooy nuyoo bi président Ousmane Sonko l'homme du peuple biir teeru bi nit ñaa ngi yëkkati seen loxo lii daw na yaram lii daw na yaram automobiliste yaa ngi klaxonné di nuyu président Ousmane Sonko ku ko romb ziar ko moom la ñuy génnee loxo yi président Ousmane Sonko borom moto yi ñu ngi tàllal loxo yi président Ousmane Sonko. nous sommes là corniche ouest à hauteur du Terrou-Bi ak plage bi nga xamante ni moom mooy Magellan fii lañ tollu destination comme ni ma ko waxee tribunal bu Dakar war a seeti. la justice sénégalaise qui a convoqué le président Ousmane Sonko waaye ni mu ko waxee ci discours am rek jarul ñu ciy jaaraat justice bu debout mu tontu la wax ak yow xooleen ma lii di ñaa génn taxaw di tàllal loxo président Ousmane Sonko ñoo ngi ni ñoo ngi jëm fi nga xamante ne moom moo di ñoo ngi jëm fi nga xamante ni moom moo di tribunal bu Dakar mi ngi noonu ñun ñaa ngi génn di nuyu président Ousmane Sonko. déglu leen klaxon yi président Ousmane Sonko xool leen borom oto bi xool leen automobiliste yi ñi ngi klaxonné ndeysaan président Ousmane Sonko ngi noonu président ngi noonu ndeysaan patriote yaa ngi noonu président Ousmane Sonko xool leen ci kaw ci chantier yi ñi ngi président Ousmane Sonko mi ngi nii c'est l'homme du peuple bu yàlla ne waaw ñëppay changé président Ousmane Sonko nekk ci agenda wu yàlla rek lu am yàlla la. moom dong moom képp moom rek moom moo yor agenda bu baax bi lu ñu def duñ koy def leneen li yàlla war a def ñu bàyyi ko moom moo ko moom mu def ko te yàllaa ko def moom moo dugal président Ousmane Sonko ci xolu nit ñi nit ñaa ngi noonu yéen a gis ngeen askan bi génn teertu ko askan baa ngi noonu askan baa ngi noonu président ngi noonu askan baa ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel cet Exceptionnel cet engouement autour de cet homme, le président du peuple sénégalais. Celui que le peuple porte dans son cœur ñoo ngi tollu Soumbédioune ñoo ngi tollu Soumbédioune war a dugg ci li nga xamante ni moo di le tunnel de Soumbédioune ñoo ngi progressé yéen a ngi seen dispositif sécuritaire yi suñu mbokk mool yaa ngi noonu yëkkati loxo yi ca kaw président Ousmane Sonko mareyeur yaa ngi noonu jaaykatu jën yaa ngi noonu président Ousmane Sonko borom terrasse yi génn nañ nit ñaa ngi génn seen terrasse yi président Ousmane Sonko xool leen ci kaw xool leen ci pont bi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi noonu Sonko nañ ci tunnel bi xool leen nit ñi ni ñu taxawee ci pont bi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel cet homme exceptionnel cet homme ñoo ngi avancé askan baa ngi noonu di yëkkati loxo nit ñaa ngi seen kaw terrasse di yëkkati loxo président Ousmane Sonko génn nañ tunnel bu Soumbédioune président Ousmane Sonko nit ñaa ngi seen kaw terrasse yi lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal nit ki fu ñu mën a taxaw pour séntu ko l'homme du peuple sénégalais mi ngi noonu l'homme du peuple est moo jëm tribunal bu Dakar askan bi génn ànd ak moom automobiliste yi di continuer di klaxonné ñii di liggéey di génn di klaxonné président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko le président du peuple le peuple sénégalais a choisi loolu moo tax ñi nga xamante ne ay saay-saay lañ bëgg ko tere bokk présidence présidentielle bu 2024 waaye yàlla xam nañ ni a pas de match premier tour ñu tëral waa ji ren di jéggi dem suñu yoon président Ousmane Sonko dès le premier tour incha allah en 2024 ñoo ngi noonu ñu ngi noonu waa RFM génn nañ ñu seen kaw terrasse ñoom itam waa RFM itam génn nañ waaw du ma tudd ñeneen ñi waaye waaye RFM génn nañ ñoom itam ñi ngi seen kaw terrasse bi immeuble Elimane Ndour bu Youssou Ndour askan bi génn nañ ci immeuble bi di nuyu président Ousmane Sonko lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal kenn mënu ci dara du patron buy fay salaire du patron buy fay salaire du général buy joxe ordre président Ousmane Sonko ngi noonu askan bi teertu ko xale yaa ngi noonu mag ñaa ngi noonu yëkkati loxo yi ci kaw président Ousmane Sonko L'homme est exceptionnel. L'homme est l'espoir de ce peuple. L'homme a un pacte avec ce peuple sénégalais. La présidence à partir de 2024 président Ousmane Sonko seen nit ñaa ngi seen kaw terrasse yi xoolal ma li xoolal ma waa Rëbës xoolal ma waa Medina mi ngi noonu borom oto yaa ngi sonne di xëy di liggéey di klaxonné di dajeeg président Ousmane Sonko di klaxonné di ko ziar di ko nuyu président Ousmane Sonko du ma ne ko mën na def waaye ah am na koo xamante ne chaque weekend mu jaar fi te du ko am xoolal ma ñi xoolal ma waa kër gi génn nañ taxaw ci biti sonko sonko yal na jaam yàgg mbëggeel gi yàlla na leen ko yàlla fay kenn mënu ci moom dara loolu la ñu wax xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu président Ousmane Sonko xool leen suñu yaay yi génn taxaw di nuyu président Ousmane Sonko mi ngi yor carte d'identité bi mi ngi yor carte électeur bi mi ngi noonu di ko wan ne yaa fi nekk 2024 mille vingt premier tour incha allah c'est le pacte du peuple dès le premier tour ñu tëral waa ji ren di jéggi dem suñu yoon parce que on a un pacte à respecter avec le peuple sénégalais ce pays doit sortir de li nga xamante ni moo di l'esclavage occidental le président Ousmane Sonko ñi ngi toll fi nga xamante ne moom moo di la maison euh, Babacar Touré la maison de la presse Babacar Touré ñu ngi noonu ñoom itam génn nañ ci kaw terrasse bi waaw mi ngi noonu travailleur yaa ngi ci kaw génn ci terrasse bi prési prési ñu koy dégg nous sommes à presque un kilomètre voire deux kilomètres même maximum de li nga xamante ni moom moo di le tribunal de Dakar la place du souvenir du président Abdoulaye Wade nit ñaa ngi génn mais ñu noonu vous voyez le dispositif sécuritaire qui est là important dispositif sécuritaire qui est là waaye agenda wu yàlla rek moo fi agenda wu yàlla rek moo fi ne président wax na ko nee na bu weesoo li nga xamante ne moom moo di yàlla bu weesoo yàlla peuple sénégalais la dénk askanu Sénégal la dénk boppam mi ngi noonu yéen a ngi xool xoolal ma gars yi ñu ngi ci kaw terrasse yi gars yaa ngi ci kaw terrasse yi gars yaa ngi ci kaw terrasse bi nit ñaa ngi ci kaw terrasse yi waaw soulevel n'y a pas un problème de son, on va, on va, on va arrêter de filmer un peu. Euh, pas arrêter de filmer, mais on va continuer à vous montrer les images, mais sans commentaire. Donc il n'y a pas un problème de son à partir de maintenant. am ne moo di ci diwaanu tribunal donc euh, euh, mën ngeen euh, continuer di ñu bàyyi xel bi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar ngeen partagé la nga xam ne moo di live bi donc yàggatul Ousmane si c'est le bon ñu ngi lay jaajëfal yow.